de Dakar, des matchs euh, ont été organisés. Mais l'ONCAV a choisi la ville de Rufis pour lancer officiellement les activités au niveau de la région de Dakar, les phases nationales sportives et culturelles. Vous savez, cette 35e édition euh, s'organise dans la région de Dakar après la pandémie. Cela veut dire qu'effectivement, il y un cachet Et nous avons noté de la région de Dakar, qui a été toujours aux côtés du président de président Amadou Khan, pour réunir toutes les conditions nécessaires pour permettre effectivement à l'ONCAV de redémarrer ses phases nationales sportives et culturelles. Aujourd'hui, nous avons 36 équipes au niveau de Dakar, que c'est un budget énorme. Mais l'engagement des responsables de l'ONCAV, avec leurs partenaires, nous avons à côté le directeur général de l'ONAS et d'autres sociétés sont aux côtés de l'ONCAV pour permettre effectivement à El Amadoukan d'organiser ici au niveau de Dakar avec les autorités qui sont engagées aux côtés de l'ONCAV pour que ces phases nationales reste un moment particulier au niveau de la jeunesse sénégalaise. Vous savez tous qu'on vient de terminer des élections législatives et le Sénégal a besoin de faire autre chose. Aujourd'hui, l'ONCAB a offert ses phases nationales sportives et culturelles et le président de la République nous a donné les instructions très claires pour qu'on soit tous les jours aux côtés du mouvement Nawetan pour leur permettre d'organiser brillamment ces phases, comme je l'ai dit, cette 35e édition. Rufisque maintenant, nous sommes dans un stade mythique, le stade Ngalandou Diouf. Nous avons assisté à un très grand match entre Saint-Louis et Dakar, pour ne pas dire Lebougui et l'autre équipe de Saint-Louis. Et nous avons assisté à un match très fair-play et nous osons espérer, avec tout le travail que les autorités ont abattu, tout ce que l'on est en train de faire, l'engagement de l'État du Sénégal, ces phases se joueront dans le fair play et qu'il n'y aurait pas de difficultés. le fair play, quel message lancez-vous quand Mais ce message, c'est un message important parce que le combat des dirigeants de l'ONCAV qui sont dans le bénévolat, c'est pour, pour accompagner la jeunesse sénégalaise, c'est pour faire de la formation. Il faut préciser que ce n'est pas que du football, il y a le théâtre. On parle de citoyenneté active au service du développement. On parle aussi de l'organisation des phases cadettes. C'est la formation des jeunes. C'est pourquoi nous insistons sur euh, la discipline, nous insistons sur le fair play pour que effectivement les objectifs qui ont été fixés, ces objectifs soient atteints. Parce que tout va être bouclé par l'université du Navetan, que nous allons en tout cas partager des moments de, de réflexion avec l'ONCAV et ses partenaires. Et tout partenaire aimerait voir sa être dans un environnement où il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'indiscipline, il n'y a pas de difficulté. C'est pourquoi je me réjouis en tout cas d'être là et je ne peux pas ne pas tirer un chapeau aussi à l'ASC Lebougui parce que j'ai vu des supporters qui ont chanté pour tout le monde, qui ont chanté pour le ministre des Sports, qui ont chanté pour le président de l'ONCAV. Ici, à Rifis, où je suis citoyen d'honneur, je le rappelais au maire tout à l'heure, parce qu'on m'avait en tout cas décerner ce titre-là. J'attends l'acte et je sais que le maire le fera. Avec Mamgour qui est à côté, mes doyens Maudodien et Issamboub qui représentent l'ensemble des fédérations. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement Nawetan s'est réuni ici à Rufisque, mais c'est le Sénégal qui est à Rufisque aujourd'hui. Mais je dois, avant de parler en Wolof, euh, tirer un chapeau à la délégation qui est en Turquie. Parce que n'oubliez pas que le Sénégal est en train de se battre en Turquie à l'occasion des Jeux islamiques. Et vous avez vu que notre basket est en train de faire du chemin. On est en train de gagner des médailles et ça, c'est l'œuvre du comité olympique. Il y a le vice-président Ibrahim Ouad qui est là-bas, a le secrétaire général Seydina Diagne, avec l'ensemble des responsables du, du ministère des Sports. Et quand des ambassadeurs sont ailleurs et que ces ambassadeurs sont en train de vendre dignement l'image du Sénégal, nous devons aujourd'hui, ici, à partir de Rufisque, leur tirer un chapeau, leur dire que le Sénégal est avec eux et nous continuons à les appuyer pour qu'ils reviennent avec beaucoup plus de médailles et avec beaucoup plus de, réussite. pour ñëw nag ci wax wàllu wolof bi mooy di sant bu baax El Hadj Amadou Kane di sant bu baax gouverneur ak le préfet de Rufisque ak préfet yi nekk dans toute la région de Dakar parce que lii xew fii tey du lu yomb. di leen fii ànd ak ay équipe yoo xamante ne cadette lañ ànd it li li ñuy waxee ay troupe théâtrale ñu dajale leen fii ci région Dakar lu métti la surtout ci waxtu wi mu am parce que xam ngeen ne at yi weesu mbas mi taxoon na nawetaan même bu daan am dañ ko xawoon a wàññi. ñu commencé nag suñu phase nationale fii ci dakaar dakaar nekk nag dëkk boo xamante ne bariwu na jafe-jafe waaye malgré jafe-jafe yi gouverneur jàpp na ci ànd ceeg président Amadou Kane ñu def CRD ànd ceeg autorité yi muy maire yi ànd ceeg ñi nga xamante ñoo jiite gox yi ak gox goxaat yi ba permettre ONCAV fii malgré le manque d'infrastructure ñu tëj Demba Diop tëj Léopold sengoor mais terewul am na yeneen stade yu ñu ubbi ba permettre tey ONCAV def li mu war a def mooy lancer les phases nationale ñu xam ne it li ñu fi gis ak fair play bi fi nekk jàpp nañ ne phase yi dina am ci jàmm jeex ci jàmm parce que li liñ ciy wut mooy bégal ndaw ñi former leen mais véhiculer aussi message boo xamante nit ku nekk nekk sénégalais di nga jël sa bopp jox ko réew mi ci jàmm ak yar ak teggin loolu moom moo tax ñu daje fi tey ma am mbégte nag ñëw fi ànd fi ak la ministre des euh, ministre de l'urbanisme vice-président de la fédération mais ànd ci ak toutes les autorités de la région de Dakar. waaw ndaw ñi li ñu leen di lancé en tout cas bu fekkoon ne stade yi ñu dem yëpp ambiance bi la ñu fi fekk suñu xel dana dal te yaakaar na ne dana am parce que li ñu fi gis mooy ndaw ñuy supporter di tëgg di wëy kuy tëgg di wëy nag taloo xaañante wala ngay sànniwante wala ngay waxante lu ñaaw defe naa ne supporter li ko war mooy jox. énergie équipe bi mu àndal mais pas xuloo pas xeex pas violence te jàpp nañ ne nag Rufisque ak li fi autorités yi daj ak li fi xewoon ak remise en question bi fi am ba ni mën fee toog tey di jouer jàpp nañ ne la leçon a été sue la tout a été maîtrisé et que amoon ci lu ñuy ñaawlu dooto fi am dañuy continuer nawetaanu Dakar yëpp ak Sénégal ñu def ko ci jàmm te xam ne waa mouvement nawetaan ay bénévolat lañ la ñuy def ñoom ñëpp ay bénévole lañ kenn fayeeku fi weer su ñu jëlee seen bopp jox ko askan wi pour nit ñi nekk ci jàmm kon ku leen bëgg a jàppale dangay ngay nekk ci jàmm loolooy tax entreprise yi mun a ñëw jàppale leen parce que kenn bëggul sa société wala sa entreprise ñuy wane markam foo xamante ne xeex xuloo def lu ñaaw moo fa kon bu ñu bëggee sport bi jëm kanam il faut ñi ko bokk yëpp di dox jàmm créer condition yoo xam ne ñëpp dugal seen i marque ci ci ci domaine boobu kon ñu ngi sant ñëpp di sant la presse sportive te di jox rendez-vous du yàgg xam naa ne le 31 wala le 30 après l'université du Nawetan dinañ dellu si pour finale phase national 36e édition su ko defee ñu gën a mën a waxtaan ak askan wi salon. Bravo aussi au commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle d'Herbassar. D'Herbassar, l'infatigable d'Herbassar, lui, il a la sécurité dans le sang. Méthodique d'Herbassar, à sa part, il vérifie. que ça Il appelle à n'importe quel autre pour faire